jëf na mu la defa tax ki ñu fi bëgg a jële mu nar ñu fee jële ba ñu jeex tàkk mu lànk rek kandaa na du ñibbi ci ay bokkam moo nekk ci xëru njëkku laas yàlla xëru njëkku journal journal bi nañu Sénégal bu ma yiwul boppam wopp ji dina leen jeexal ba ñu jeex tàkk ndax fi mu ne nii li mu néew yaa ngi gën di yokk ndax fi mu nii may wax ak yéen Sénégal am na lu toll ci téeméer ak juróom fukk ci ay néew taal bu taw a tàkk fu ne lañu koy uppee kii upp ba sonn mu lànk rek na du tàkk te ay pexeem jeex tàkk moo nekk ci xëru njëkk Sud Quotidien yéen a xëru njëkk journal bi ñu fekk fa ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye journal bi nañu moom kay ku mënul bawoo lu yàqu yow waaye moom dafa lànk rek na du bàyyi may ma tuuti rek ma ñëw na wopp ji ca dëgg-dëgg dafa dëgër bopp rek ndax ñun waaye bu yoon jeexul rek waxi su du jeex waaye Ngouille Ndiaye yemu ca ndax nee na nag moo taxit nag ginnaaw ñetti weer yu mat sëkk fa séena nañ cee dolliwaat yeneen ñetti weer yoo xam ne takku masque yi moom day nekk farata rek ju sax dàkk rek ci réewum Sénégal l'observateur nangoo wax ji ca moom ne ko may ma tuuti rek ma ñëw ndax Aly Ngouille Ndiaye yemul foo Aly Ngouille Ndiaye nee ginnaaw bi ñu xoolee na wopp ji moom ñi am am juróom benn fukki at la gën a yab moo taxit képp kuñ ci xoolati rek ne am nga woppi covid 19 ji dañu lay jël rek hospitalisé la ba keroog ngay da nga am ñaar fukki at jëm suuf ñu xool ne nag da nga amee sa kër lii de xanaa mooy suñu pexe jeex na dëgg rek ñi ñu bàyyiwul ñu ñibbi xanaa ñu tee leen di leen xor ñoo ñan ñoo nekk ci lalu hôpital yi ñoo nekk ci xëru ñëkku les échos yéen xëru ñëkku journal bi journal bi nañu fële ca centre de yëmbal nord am na koo xam ne dañ ko faa quarantaine mais dafa daal dina ci daw wàqir rek la moom la ñu fi yoree duñu leen jox ñu lekk waxuma laa di naan di ci mënta noppi raxasu ci ba set ci wecc te gisul résultat moo nekk ci xëru la xëru ñëkku journal bi ñu fekk May Sy Mansour journal bi dëgg-dëgg nag sëñ bi moom mi ngi bëgg a sonn ci woppi covid 19 ji les ko ne ko may ma tuuti rek ma ñëw ndax sëñ bi moom ay dëggam yu wex xàtt rek la di ko sabañ nguur gi sëñ May Sy Mansour nee ca dal te ñu fas yéene jàkkaarloo moom la affronté ko mu jeex waaye sëñ bi yemu ca ndax nee na moom dañoo war a wax sénégalais yi dëgg gi benn ñu far noppalu ji benn ñi mënatu te noppalu te seeni nelaw jeex tàkk ñu te journal yépp xëy amee leen yéen xaluñu ko journal yi laas na ñu Macky génn na ca quarantaine ba li ko jaaxal ba tax boppam tëju ràpp mi ngi ci xalu njëkku libération yéen xalu njëkku journal bi journal bi ne ñu li li doy waar ba egg ca lool moo nekk ci xalu njëkk njëkku libération yëlan xëtu njëkku journal journal bi nañu ginnaaw ab taxaw seetlu akub jàngat bi nga xam ne waa l'inspection générale def nañ ko ci ñeenti at yi ñu génn li ko dalee 2016 ba ba génn na journal bi nañu li ci gën a fés mooy mbootaay gii di RTP nga xam ne jël nañ lu toll ci juróom-ñetti milliards jébbal ko kërug wootekat gii di l'Expresso lii day moo ëlëm askanu Sénégal waaye journal bi yamu ca ndax nee na am na am na jëwriñ joo xam ne moom daa jël ñetti oto ca ba pare fàttee koo delloo doy waar dëgg kay nag mooy kër gi ñu jëndee 406 millions te kenn mënu koo tëggat l'observateur ne may ma tuuti rek ma ñëw ndax maritoo ñaan moom li mu luubal ci xaalis ëpp na ba jéggi dayoo waaye journal bi yemu ca ndax neen abi si moom fu ngeen ko fàtte ndax moom tamit luubal na lu toll ci 65 milliards bu fekkee taala si la moom kenn demul mu des ndax moom tamit luubal na lu toll ci dizaine de milliards yoo xam ne kenn xamul fu mu dugg vox populi mel na koy fel seen gémmiñ ne leen li ma ta wax dëgg kay waxagu leen te yi jël nag di ko saax-saaxi moom fan la bokk ndax bu ñu xoolee ci atum 2018 bii ñu génn gouvernement gu Sénégal am nag ñu toll ci juróom-ñetti fukk ci ay wata waaye jamono ji may wax ak yéen am nag ñu toll ci juróom-ñetti fukk ci junne juróom-ñetti fukk ak ñaar ci ay daamar yu ñuy wut te amaguñ yu ñuy commandé te ci mbir mi di door a jël wàllam mi ngi ci xët wu njëkk wal bi coowal kéwél yéeg Abdou Karim Sall ba tax ñëpp di ko mii moom kay la tur bi ne ko may ma tuuti rek ma ñëw ndax maître Abdoulaye na plainte contre Abdou Karim Sall waaye journal bi moom dañoo yëpp moom kay tekk ndombal tànkam rek moo ko dese ñi amatul lu leen dese ñu nar a rayante ba jeex tàkk ñoo nekk ci xaru ñëkku l'observateur yéen xaru ñëkku journal muy lu doy waata amee ci dëkk bu sell bee di Touba benn dawalkatub sareet moo doon laalee ko xaritam ba far ko jëm ci put mu far jaare ca ñàkk ca bakkanam waaye moom tamit la ko dal seddu ndax ña fekke woon xeex ñu door ko ba mu nekk ci diggante dund ak dee waaye li doy waa dëgg te kenn ñemewu ko wax moo lam amee fële ca ndakaaru moo nekk ci xër wu ñëkk l'observateur yéen xër wu ñëkk journal ñu fekk fa seen nus ndaw suñuy wax Fatoumata Ba Fatoumata Ba mi jël xaalis bu weex tàll fay ko ay agresseur ngir ñu sàccal ko ab iPhone 11 ci benn xaritam ba lëgëg càmm